aousubillahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki pas-pas ñu ngi di nuyu di leen ziyaara di jox ku nekk wàccuwaayam tàmbalee nuyoo bi nag ci suñu kilifa ñun ñëpp di Seydi Aboubacar Sy Mansour ak rakkam yëpp mboolem ku Cheikh Seydi Hadji njaboote ñu ñëw fi rek tey ngir benn illa muy xadratul juma le 8 mars bu ab naawu xadratu Tijaaniya ci ndigal gi jóge ci suñu maam ju tedd ja Sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amin ñu ciy mboolem koo xamante ni rek euh, jullit nga ci fépp ci senegal ci diaspora bi rawatina nag suñu mbokk jigéen ñi ndax tey li tax ñun ñëpp ñu ñu ci mooy dafa tombeek euh, bés boo xamante ni ci at mi dañ ko jagleel jigéen donte ni jigéen euh, jiiru dund bés yëpp moo mooy borom ndax euh, umul madrasa la donc euh, ñu ciy woo jigéen ñëpp nag ñaan yàlla ñu ñu teewee ko ak jàmm incha allah ñu ko suñu maam di tedd ji buggee woon ci yar ga ci teggin bi ci yiw gi ci col gi ci ñëw fekkee ko jàmm doon bésu jàmm yàlla doon bésu ñaan incha allah ñuy ñaan yàlla rek fekkee ko ñu ko suñu way juux waxee itam léegi nii di soxna Ndeye Astou ñu ñaaxaat njaboot gi ñëw yëpp rek dam ko ñun dañ bàkkee ay jàmbaar ci lépp ci ci kaw suuf rawatina ci diine bi suñu maam Cheikh Seydi Aboubacar si ñu woon ñun la féete woo ndax la jëluñ ko ci ijaaza la jëluñ ko ci imaama te lu mu woote ñu mun ci ñu bugg rek kuy ñëw incha allah euh, nga indaale ñaar fukk dina am euh, comité bu koy saytu bu bu ñu bu ñu jógee ci xadara beeg jàmm incha allah ñu fexe nu ñuy defee social ci wàllu hôpitaux yi wala daara yi wala euh, njaboot yi nga xamante ni itte woo nañ ko ndaxte fu ay jullit di daje at ba at euh, war na am lu mu jural askan ba bay bay bay yëngu ci ci loolu te suñu maam Abdou Aziz Sy Al Amine loolu la digle woon ñu bu ko kenn indilati ay projet nañ def ay réalisation donc bu ay njabootam di njabootu maamam di daje at mi yëpp ci cappaandaw ga ñu ni na ñëpp daje stade Amadou na am benn empreinte bu mu marqué ci dimbalante diggante ay jullit beneen bi nag man niñ ma ko waxee léegi géejawaay laa bokk donc dama bugg képp ku nekk géejawaay dawaa yi fa nekk yëpp nga xamante ni amlante nañu ak ñoom di len fekk ci seeni xew-xew ñëpp nañu téla a ñëw stade Amadou bar ngir sargalee ko suñu mam Abdou Aziz ci Al amin waye ngir wat suñu talibé ci Cheikh Seydi Hadj Malick radiallahu taala anhu ñu wàcc kàddu yi fofu santat bu baax baax wa am ak seen njit di seen fatasa ak comité bi yëpp السلام عليكم ورحمة الله الله تعالى لا لا إله إله إلا إلا salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa la ilaha illallah